casting bi tey la. ah effectivement. voilà Daara mi ngi ci yoon bi di ñëw te dama bëggoon casting bi ma ak yow ñu neutre ci. mooy kon Ndakaaru sama présence si casting bi waru mun yàq dara <laughs> parce que déjà man Ndakaaru bëtu garmi laa yor. déjà yow sa bëtu garmi lu dul lu xees mënu ko gis. da ka kon casting bi da ngeen koy defaat kii kii sama xarit la fan yële passé dama doon wutloo ku koy way ndax xam nga rek dëkk bi pour nga génn moom faw nga am koo xamante ne da lay puus yow dafa sa kanam bi baaxool bi nga xool lan ngay def ci suuf laa wax non c'est juste que dama bëggoon naan café. naan café dama bëggoon naan café man dina la tax muy faral naanoo café lu xees nga bëgg a naan. ayca ayca ayca sëñ bi. man nga ayca sëñ bi.